nguuru kàcc nguuru fen fen yi saa su ngeen xëyee muy gën di tooy di gën di taq bàyyi leen kàcc bàyyi leen fen fen ngeen 14 raisons yépp saa su ngeen xëyee fen yi di gën di jëm kaw rek askan yi li leen gën di weddi ngeen jël seen feebar di watal rek naan feebar bi rey na kee rey na rey na rey na na rey ñépp gëmuñ ko way gëmuñ ko ba muy dugg si lañ leen wax ne feebar bi la muy def Europe def ko Sénégal bàyyi leen tappale gi te ngeen organiser élection locale yi ñu dóor leen ngeen wadd yee xoola ngeen organiser élection locale yi ñu dóor leen ngeen wadd loolu mooy wax ji te ngeen bàyyi puus gi ngeen koy puus ba ceeb bi tawte ndax bëgg <laughs> bëgg dem ci baykat yi di leen nax naan leen Macky Sall moo joxe ceeb bi suñ xaalis ngeen sàcc ko dóor suñ 1000 milliards dóor dóor suñ milliards milliards diaspora bi bëgg am élection locale moo tax ngeen ñuy fenal kat yi nguuru kàcc 14 saison yëpp fen ngeen fa jël ceeb boo xamante ni Sénégal 17 millions la 17 millions habitants mooy bu waxee ngeen naan 15 ëpp na ko amuñ ay kayit ñu bëri amuñ seen kayit dañuy tappale rek depuis ma juddu ba léegi ñu naan 15 millions 17 millions habitants tubaab bi nekk fii di leen nax tubaab bi nekk fii di leen nax tubaab bi nekk fii di leen nax 17 millions habitants lañ 17 millions yooyu Macky sàll 3 mois ngi nii nee na 1 million personne moom la bëgg a dimbale 1 million personne hélas maa lay nuyu Eko maa ngi lay bëggee bu baax a baax patriote bu mag bi 1 million personne 3 mois moom la a dimbale bi ba ceeb bi tawte ñooy puubóoda ñooy unku ñooy sàcc ñooy caasaay ñoo mën a fen 14 régions ñu leen di fenal fenal 18 millions habitants ba 17 nit ñëpp xam ne da ngay ni fen nit ñi gëmatuñ leen moo tax transporteur yi gën a dal seen kaw ngeen reculer way mais li ma bëgg nga xam mooy que ne ceeb bi nga babam tawte te ñëpp xamoon na ne ceeb bi ay tappale la ba nga ci dugalee ay maire laa xam ne tappale nga nar ba nga ci dugalee say maire yi rek laa xam ne tappale nga nar way naan dem leen séddale ko maire yooyu dem di ko politiquer yow yaay politicien bu mag bi Macky Sall jël ab ceeb boo xam ne ndimbal la dëkk yëpp dañoo dimbale seen njaboot ñun fi ñu nekk ba léegi chaque mois ñu ngi jot cinquante mille te fu ñu ko jotee ci réewum jàmbur ndax am nañ fi ay papier yuy wane ne ñu ci réew mi kenn politique si ko mais jàpp naa ne damay dimbale. 15 millions habitants 17 millions nga ne 1 million ngay dimbale 3 mois mënoo leen a dimbale ba ceeb bi tawte xuur yooyu yéen a raw corona ceeb bi ngeen jox nit ñi moo raw corona ku ko lekk cancer ray la diabète ray la te feebar coronavirus bi boobu métti la te la soj la waaye leen kàcc geeg fen gi fen yi dafa doy gone yu juddoogut sax xam nañ ne da ngay fen gone yu juddoogut xam nañ ne da ngay di fen da ngay di kàcc doo leen waxatu dëkk ñépp ko xam senegal li nga jàpp Cheikh Yérim lépp tappale la bëgg nit ñi débaas fàtte ceeb bi xam na suuf si ngeen saax saaxee xam na ñëpp suuf si ngeen saax saaxee bañ juddoo ba léegi ñu ngi door waar mënuñu am këru Dakar seen doom yi ku judd ak seeni mbokk tabax ay sata Youssou Ndour mi ngi deux cent hectares loolu dafa nga ne jàmm la léegi tax mu la doon tëggal ngay pàkkal ñi di fecc ngeen naan alali mbooloo alali mbooloo ba mu koy way dafa fàtte woon ne xanaa tey liiru ñoo tey suñu impôt bi na ko fay te hectare yooyu mu joxe ko te askan wi génn dal si seen kaw ñoom sàcckat yi tappalekat yi muñ dara ñoom sàcckat yi tappalekat képp koo xamante ni tabax nga ci côté géej gi nañ ko toj loolu amul sikki sàkk parce que mënu leen ñoo tere lekk-lekk bu baax nan naan bu baax léegi na ngeen ne buñ nooy nooy gu baax nooy gu baax yàlla moo ñu koy jox indil ñu ndox indil ñu suuf ngeen ne du ngay nooy nooy gu baax danañ nooy nooy gu baax bay dugg seen caaya te du ngeen si man ñaar salaamaaleykum milliards yi ngeen si mën a def danañ dal seen kaw na ngeen dugg ci biir kër yi si yooyu ñu def si tefes gi ngeen dugg fa taal fa ay puno taal fa ay puno mbir mi fu ne ni wax ji darul neex ku xamul buur seena ñu la buur deen ndax ay kàcc kenn ngeen parce que bu fekkee ne nit aaroo ko ci la muy lekk luñ fi indi rek lu fi tubaab yi indi rek ngeen ne jox leen Sénégal yi buñ dee baax na ñun nañ naanee Europe ñun nañ lekkee Europe léegi nag ñu lekkatuñ lu baax ngeen ne duñ nooyi nag jël pegg géej gi yëpp tabax fa seen i satoon ak jox ay tubaabak ak seen yéen seen i nit wala ngeen fay dem di béggee yéen nag di ñu xañ nag ñun lu neex hmm? seen i koy am kër yéen seen i mbokk yi nooy nooy gu neex seen i mbokk yi lekk lekk gu baax hmm? yéen tey ji ku rapport épinglé duñ la lijjanti jàpp gor yi di leen tëj na ngay libéré Assane gëmu leen dara ay seytaane ngeen ay sàcc kat ngeen ay doomi tigga kolom ngeen doomi daqaar ngeen doomi budu wër a ngeen du leen dara laa la wax il faut ñu leen koy wax il faut ñu leen koy wax parce que li ngeen nekkee dafa ñaaw nit koo xam ne dangaa judd rek jël fen gardaajoo ko rek du koo wàcc rek jël yoon wa rek ne doo ko wàcc nit ñi di la ko génneel si internet bi nit ñi di la ko tegal si youtube bi di la génneel say fen nga ne doo arrêté lii lan la lii lan la da ngaa war a arrêté da ngaa war a arrêté ma ne lu transport yi doon xeex loolu du xeex transporteurs yi seen bopp lañ doon xeexal mais xam nga lan mooy xeex bi mooy mooy ñu dem sa géej ga taal seen néeg yi taal seen kër yi ne leen mbir bi dañ koo bokk gan yi nga xamante ni ñu ngi ci àll bi ma ne bu bukki bukki laa wax bu xiifee bukki bu xiifee bukki bu xiifee ma ne bu gaynde jàppee sax bu ko lekk moom kenn mu siif joxe bakkanam ma ne bu fekkee dañoo ne duñ nooy nooy bu baax duñ am ci kër yu baax yi nañ siif lu ñu yem si ñëpp mbaa ñu yoon mbaa ñu benn mbir mi kenn bu ko teggi dëgg la dañ koy wax mu leer nañ amatul ragal mbir mi yàgg naa di leen ko wax mbir mi xeex la xeex la mbir mi mu mënuñ koo moytu nit koo xam ne ci xeex nga faloo ci tur deret nga faloo ci loolu ngay wàcc troisième mandat bu muy wax yépp faale wuñ ko mais dañoo mënut a ànd ak moom troisième mandat parce que sàcc ge fen yi dafa ëpp foo xool scandale la foo xool scandale la ceeb ceeb ceeb boo xamante ni si dix-sept millions un million personnes trois mois nga téye ko ba ceeb bi di xuur nga daan na koy jox nit ñi dañoo bëgg ngeen dee bu leen lekk seen ceeb bëgg mu gën a jege élection locale yi ndax xam nga ne élection locale yi perte nga ko bu yàgg yaa ngi koy pousse rek yaa ngi koy pousse opposition bi dañoo war a génn obligé la ñu def élection locale yi mbir mi jeex ku ne xam fa ngay faree te nga bàyyi tappale gi loolu mooy wax ni bàyyi leen fen yi bàyyi leen fen yi fen yi gi élection locale yi ngeen di jël di di gën di pour bëgg di joxe ceeb dem ci àll bi sama mbokk béykat yi di leen nax jël ceeb boo xamante ni ci seko yi nga xamante ni seko yi nga xamante ni depuis 1960 la fi seko yi nekkoon mooy fi ñu daan jaayee gerte gi xam ngeen fu may wax di fa daan denc jiwu depuis Macky Sall falu ba léegi dañuy fenn mayu jiw jiwu joxewuñ jiwu baax seko yooyu noonu dañ fa daan denc engrais ak jiw mais seko yooyu léegi xam nga lan moo fa nekk xam ngeen lan moo fa nekk janax kaña jënab ak kaña ñu dem jël suñ ceeb bi jox ko kañee di fa puub kañee di fa day mais nguuru Macky Sall di bañ faloo ba léegi ma ne amul seko boo xamante ni am nga jiw bu baax wu ñuy wax kaña yaa fa dëkk seko yooyu ñu den ci ceeb bi kaña yaa ngi fa di lekk ceeb bi ceeb bi di taw te du xuur ñu naan dañuy xaar leneen te amuñ dara un million person un million personne mënoo leen servir trois mois peuple yi nga xamante ni ay 17 millions lañu ñii nekk ay million kenn ku ne dañ laa jox ndimbal yow Sénégal yëpp ku ne am carte d'identité rek mënoon lañ laa dimbali ci milliar yi ngeen di sàcc waaye ñun ngeen def doom waaye nag askan wi ko nangu askan wi luy seen rôle loolu jar a xeex mooy suuf si ñuy jël du ko saax-saaxee ma ne Youssou Ndour si la bokk système bi la li taxoon keroog bu waa Touba di manifesté wu sa rajo bu nekk Mbàkke ñu attaqué ko parce que si système bi nga bokk ma ne ministre bi nga xamante ni mooy ron wàllu culture wax na la ko ne am nga deux cent xayma nee na mi ngi nekk huit cent tey ay kër huit cent loolu dafa nga ne jégg na dayoo loolu dafa ngeen ne loolu si nit ñoo xamante ni ay boo yoo xam ne ñu ngi amina ñu nekk ay baykat mosuñoo am koppam suuf mosuñoo am koppam suuf ñu feral askan wi di leen saax-saaxe di leen kàccal guddi ak bëccëg di fen di dem di fenal baykat yi di fenal waa Ndakaaru di fenal waa Sénégal di waa baykat yi di fenal Ndakaaru di fenal waa Sénégal naan dañuy joxe jiwu baykat mosu ñoo kenn jiwu dañuy jaay jiw bi jiw bi nga xamante ni ma ne 200 lay jar jaay wuñ ko dara lu dul fanweeri ak juróom 175 di fenn naan dañuy may baykat yi bala maa ñu taxaw seen tali yi joxe nañ jiw joxewu jiw da ngeen jaay jiwu te jiwu ngeen ñu jaay ñu ma gerte gu ràkk la gerte gi ngeen ñuy jaay ma ne duuful comme waa Kër Macky Sall gerte lay duuf dijj ba ngeen faloo ba léegi sax gerte ko baax mu mënuñ ko am gerte gi nawet bii ñu weesu gerte gi dafa sew ruj ayof taay boo ko peesee tos doo ko am tus doo ko am da ngay ne fen ba gerte gi yëg fen yi da ne fene fene fene ba gerte gi yëg fen yi fen dafay am am nguur fen munu ko yor fen mënu ko yor il faut ñu wax leen ko il faut ñu wax leen ko gàtt yi dafa ëpp ma ne joxuwu leen engrais joxuwu leen jiw da ngeen ñu koy jaay saako engrais bu ngeen demee ba ñu koy joxee 8000 saako bi nga xamante ni ne nañ état subventionné na ko nga koy jël baykat di ko joxe 8000. koo xamante ni ab sëriñ la ki am ministre la nee na moom day am deux tonnes ñu am dix tonnes koo xam ne amoo tool nga naa yéen nga jox baykat yi réew mi lée ko yàq Sonko nag lépp lu mu woote dëgg la tamit moo newut ci tawari rek moom day pratiquer parce que joxam deret mi gis ngeen nu mel joxam deret mi gis ngeen war na fépp Sénégal dem ba ñaan deret am na fi di leen arrêté loo moo tax ñi nga xam ne baaxuñ benn ministre ngeen gis mu sa gis muy maye deret ku dul Ousmane Sonko taxaw maye deretam ànd ak ay nitam ñuy maye deret mu pare se neleen damaa bëgg ngeen jublu si tool yi ngeen bay ndax mbay moo mën a soqali am réew kon kii yi mbiram yemaloo ko ci ay wax ay jëf ya yu leer ay jëf yu leer yéen nag seen mbir yépp ci tawri rek ngeen ko yemale maanaam fen rek di wax lu ñëwagul te du ngeen ko def te loolu dañ koo xam mu leer nañ lii moo war a doy te damaa bëgg Assane Diouf ngeen libéré ko mënu leen a jàpp ko xam ne foo médecin la muy piqué na askan wi piqué na ay nit ñu dee yu koo xam ne kenn xamul nu ñu yem ngeen làq ko si biti koo xam ne milliards foo biyee la defar mi ngi ci biti léegi-léegi kii wax dëgg ñu ne dañ ko jàpp gis ngeen xeex bu ngeen doon xeex du xeex bi lan mooy xeex bi mooy Abdou Karim ci biti Assane Diouf ci biti nit ñu dëgguñu waru ñoo nekk ci biir kaso loolu moo jara dee loolu moo jara dee loolu moo jara dee réew dafa doon jaamu yàlla dafa doon jaamu yàlla ma ne boo ci dee da ngaa dem aljana firdawsi Macky Sall ko ànd ak moom ba rey la safara lay jëm moom bu la rëyu sax parce que ñu lekk si suuf bu leen ko yàlla gàccee bu ko ci dee sa bàmmeel bi laa la wax ay sax yu mag dañuy génn ay jaan ba pare suuf si di la nag nga yuuxu sa meeme di génn da ngeen dee yéen ñëpp parce que li ngeen lekk si suuf di lor askan wi dafa ëpp dafa ëpp moo tax ngeen gisoon fi ministre bu dee oto yi di tàkk ay misaal la ay misaal la li ngeen teg askan da ngeen yaakaar ne ci àdduna da ngeen torox ba bu ngeen dee suuf si dana leen nag sax yu mag yi lekk leen jaan yi lekk leen nag leen ba ngeen di bëgg a dee. da ngeen di jël réew mi rek di leen fenal jël seen milliards yi di ko lekk yorewu leen am réew dara defu leen ko askan ku ne taxaw fee naa assainissement. Touba la ngeen fa wax assainissement assainissement chaque année nga naan milliard bu tawee bu xiinee sax mu taa ñëpp di am problème marché bi bu ñu ngay bëgg a dee. loolu fan nga koy gis ah bu dee wax ma la ngaa da ngaa mi ngi liggéey lan la liggéey lu jël suñu milliards yi sàcc ko autoroute Ila Touba warutoon a ma koo foo xamante ni dañ koy fay mu doon péage dañ fi waroon a dem àll lañ am suuf lañ am am nañ xaalis bi financé ko oto yi di dem kenn du fay ñaari salaamaaleykum man maa dee ñu naa ma Ila Touba bu ñu fontoo bu ñu fontoo deful lañ kenn tus laa la suñu alal jëpp sàcc nañ seeni doom yaa ngi jël dawal oto yi million jànguñ tus loolu tappale sàcc lañ jàng ak fen jël réew mi gàddu ko dañuy fondo sama gars bëggee naa leen wér a wér a wér di leen siyaare bu baax a baax mënu ma fay yàgg damaa amul benn tuuti temps rek mën na naa daw dóor ko benn 30 minutes benn 20 minutes parce que gëm namu naa leen maa ngi leen di bëggee ba Souleymane maa ngi leen bëggee moom maa ngi leen di bëggee bu baax a baax Cheikh maa ngi leen di siyaare Omar bëggee naa leen bu wér di leen siyaare quoi bëgg ma fay yàgg mais dafa am yoo xam ne mi ngi sama xol quoi naqare ma ci réew mi waaw fen yi dafa bëri liggéeyu fen kese fen kese Moussa siyaare naa la bu wér maa ngi lay bëggee